nañ daal daal doy na waar daal. man de xam naa ne li ma maman Gueye waxoon dina ma ko yónnee. Ah. maa ngi koy déglu rek. bay ma maman Gueye dina ko ko yónnee. bay ba ma ñëwee ba léegi mosulaa seet. wala wala mu jox la mbubu. ah kooku daa ngi nii suukar ah. ñëw. ah dama daa defar lu baax nag ba léegi de. Ah, kooku. mën na ba xoolal kooku fekk ku mu doon. moom na foog nang sax. ah la foog nang sax. waaye salaam ça kenn xamul lii lan la rek. Mamadou Diallo moom moo gën a ñàkk jom ñëpp. Asi ah, hmm. bisimilah. moom amu ko. woo naa ko kat. loolu yaay mi ngi nekk mu naan ma Ibou Guèye laay xaar. Ibou Guèye laay xaar. xaaru kenn xaaru kenn Fatou Yaddu yónneewul. xaaru kenn Fatou da ngay da ngay réer daal Mamadou Diallo ci boobu moo amul jom. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ay salaam. maaleykum ah, salaam. ah waaj ba. waaw ah ñuy ziare. naka yi tey. waaye bisimilah ah waaw ah, ah, waaw jox ko jox ko seen jox ko seen jox ko jox ko seen mu toog waay indi ko seen. léegi dafa coono. ah doon ngeen naaj ji. maa ngi am jàmm baax a baax. taarikàlla indi laay taarikàlla. léegi dafa coono toogal bisimilah. mbokki fan. ah mbok mbokku ko Thiès. ah Thiès. Thiès Thiès na ngeen dafa coono. alhamdulilah. taarikàlla indi laay. indi laay mbaay la mbaay mbaay. mbaay mbaay la mbaay Diop Diop. Diop na ngeen coono. Diop Diop Diop. saari kaal alhamdulilah Diop. Diop na ngeen dafa coono. mbaa ngeen si jàmm Diop. Ah, koor gi. Ah, waaw waaw waaw ah, saari kaal saari kaal. indilaay. ah man de daanaka sax aw ma toogaay. ndax sëñ bi def lu baax coono Diop nee na ah may ko ndox man astafurlah ba kii wala Diop Diop waaye naa ngi tàng Diop waaye ñu ngi ci koor gi waaye Diop damaa xër rek. Diop Diop. daal ndawam la. moo moo jëloon teraanga ji nga xam yàgg na koo def. est-ce que. moom kay wa moom moom kenn war ko def. dee ju dee ju mitti la dee. dee ju mitti la dee. tey tey si sëñ bi. yal na ko yàlla. yow dal. toog dal moom wax la la la xew ki ko yónnee ngi fir dund li defi teraanga indi lii nga ne fi naan dafa dee ak dafa dund ah daloo dara yow yow awa yow neen dafa coono Diop ah, Diop Diop Diop teraanga la Diop yee Diop ah, alhamdulilah ni mu ko defee ci yéen nag la koy defee fépp aha ah, kenn umpale collectivité euh, bi nii la koy defee defarawaat waaw te chaque at euh, dégg nga xale yi nga xam ne lu ma trois xale. waaw da ngay jël xalafoon leen. isaan dëgg la ko def kër di may teere. dëgg la. waaw artiste ko am oto rek moom la ma yii yii sama oto nga nee gaare. sama oto nga nee gaare. anamu anamu. ah waaw jëkkër da nga koy sutura. ah waaw waaw waaw waaw. ilaha illa daanaka daal dem na si téeméeri junni allahu akbar ah waay waay yéeme na de mën naa ko kii ah, eh, eh, eh, ah waay waay waay waay téeméeri junni téeméeri junni day allahumma salli ala sayyidina man de dama ah. amatu lu ma wax seet seet seet seet seet ay waay bu fi man man bu ma dee woon fii sax xanaa nun rabbi ma rek de ah, suñu yàlla amu toogaay rek ndax jërëjëf Diop li may def fii laa koy defee. Ah, ah. waaw def tuur. moom la da ngeen dugg rek moom la borom tawfiix. moom la ah waaw waaw yow mi yéen gudd fan yow mi moom it yéen la gudd fan. mi ngi defi teraanga de. waay waay waay waay borom tawfiix waay. fiix fiix. waaw ba ma demee fii yàgg na de gëj naa ca naaj wa gëj naa ca naaj wa jërëjëf Diop moo bañ laa téye rek jërëjëf Diop jërëjëf Diop xam naa ne mosoo ko gis ci man mais boo demee rek ne ko man maa ko defaloo ma ne ko borom taw fii fii borom taw fii waaye man loolu dama ko ko <laughs> sa kanam laa ko def nag yóbbante la yóbbante la yóbbante la jërëjëf Diop foo jublu yàlla fa yiw yàlla jublu foo borom tuub bi yëpp. borom tuub bi yëpp. borom tuub bi yëpp. borom tuub bi yëpp. ah. lii nag dama ko bokk samay moromu ndaw la. Ah, muy dukkule ak maalaw. waaye dinaa def lu tuub mën nga téye làmmiñ ñoom nga téye sa làmmiñ ku ci nekk dinaa def lu tuub ba jox ko ñaari junni ñu dem ma dem ma raxasoo ak ñoom. kan ak kan. ah maalaw ak dukkule xanaa. mukk mukk ku ci nekk jox ko junni ak ñeenti téeméer. junni ñeent téeméer. waaw. ah yow mottu nga di nag yow tamit nag. Eh, dañ cee bokk. ah waaw wax nga dëgg noonu laa koy. dañ cee bokk ma ne li nga wax loolu laa loolu laa koy doxalee. noonu laa koy doxalee dama ne. yow lii dama ne yow lan nga ci bëgg a def man laa bëgg a xam li nga ci bëgg a def rek laa bëgg a xam. kii ñu cee wut ay tablettes yu nen. xaalis bi ma ne xaalis bi loo ci bëgg a def laa wax. li ñu bëgg a def laa lay wax ni dama bëgg. ñu wut ay tablettes yu nen xam nga nen day def ferñeent kii nii. parfois ñu baxat parfois ñu toj mayonnaise parfois ñu a ñu ñu ñu ñu. Ah, léegi moom omeletal ma ñëw omeletal ma ñëw maa ngi ñëw damay julli tisbaar nga om en attendant omelette bi di pare ma ma ma julli maa ngi ñëw wutal diwlin ma ñëw wutal diw. mbaay xafi yaa ngi ne. omeletal waay waay ba ba la yam kenn waay wuy waay. ngir roog ngir roog. Ah, كده واي واي وجهك ضرب خلنا واي كده وفي عمله خرب فيها عمله خرب أه؟ فيها عمله خدم خدم جتام او قال لي سق او قال جتام جتام ولا ينونام بوين فلاي دي waa kii doon roysa ma xalu saalum fo fo fo ceebu jën sax naa koy war a fi nekk la yaa omle ah xata xuwale yaa omle no omlet? ¡Hombre, ah, Para ah! no para salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def waay. ah dëkk de. waaw na ngeen def ah maa leen. waaw na ngeen def yéen ci jàmm. maa ngi jàmm ayca waay lan leen base ba jàmm. non jërëjëf ko jërëjëf ko mën nañu koy. ah nouvelle bee neex rek ñu ñëwee doole. waaw bàyyi jàmm. waaw waaw sant alhamdulilah. ndax koor gi. na ngeen def ak coono. alhamdulilah. kaari kaar la. ah waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw si biir waay. jarul ngay làkk ak moom leneen yaa Sofia yaa Anta Ndiaye jëm déggu li ma bu lii jaaraate sama kanam di nga xam ne góor yàlla nga romb. xet bi xet bi moom buy ñëw rek may may may. yow bu la xet doon daaneel doo toog fii. man man ah ma ne. yéen coono kay yéen lan la. yow maa leen woo. lan nga leen lan la affaire bi affaire bi. sukar koor beeg yooyu. ban sukar koor. ah waaw eh eh dégg nga. sëñ Madoum Seye borom tawfeex. dafay yónni. waaw moom la ñu mën a wax. ah ma kaa leen jël seen wàll. la ñu wax. waaw yow am na kan la xam nga ne la sëñ Madoum Seye dafay indi loo xam ne ñu joxante ay wàll bi ma fii di bii laa dégg waa ji wax ko mu ne borom tawfeex moo def ci teraanga. loolu kay loolu bu neex la. pour yow ak ñoom Malaw ak ñoom Dukure. yow umpale yi am na tey war na mën a ne. Hmm? la. kii. ou. waaw. désolé. Ah. ne ah man bu leen ma fontoo Serigne Mandione Seye ki mu fi yabal ndaw loolu bu mu ñëwee ndax ma ni carrément lii ma lay jox muy cinquante mille. fukki junni yi ma lay jox cinquante mille faraay yaa ko moom. Eh boo ci amee ngorom mayel mayel. dina eh jox lii la fi wax. Eh dégg moo mën a duuli. waaye ma man de ma ba bu ñëwee ren suñu ndaw. waaw la un million la un million million et pétul bërëm. nga def ay cinquante mille. ah xaa. génne la million yi yaay. waaye man yaa bëgg million yaa bëgg million. ah eh, di ma enveloppe yooyu laa gis. kaa ah jaba. eh dimbali ñu. waay ka waay ow dara. merde ak ow ak daan. ndi ma fan la gisee million yi. booy li mu wax dëgg la. yaa gis million. Fataas Fataas déggu li la wax. cinquante francs moo fi eh pët pët beeg ñun ay lam murit bi 1 million la da déglu ci table bi. waaw lu nu mës a am ci àdduna ñoo ko amandoo. waaw goreel ah ku ci bëgg ci yéen ñaar dinaa la jox ñaari junni jox ko ñaari junni. mu mu mu mu mu mu ko laal. du nekk ñeenti téeméer ku jël ku bëggul dara. Eh, xam nga lu ma ko fa doon ne xam laa la wax. maa ngi lay eh, yow bàyyi jàmm ne xam ne lu loolu. Marie Seye ka la yónni. Marie Seye Diop la yónni Diop ba Thiès. rafet rafet. da ngaa yor numéro. gis nga woo woo ko. taxaw taxaw non. boo fi woowee rafet da nga fi nekk jot. waaw ñu fi leen wax muy que nu ñuy xëccoo ak yow xaar te wax. dégg li ma wax. yow kii wutul kii wutul Pataas mën ngaa delluwaat rotation fooy nga nekk kon ba mën na jënd li may liggéey. Eh, wala Pataas demal nii. demal nii boo fi jotee pouvoir Bakar yaa ko jëlee sa bopp. soo ba ba tey ba tey fay nag yaa koy fay. ba tey ba tey baax ah, yow yow li nga ko Dakar nag yaa yaa fay sa xaalis wuy ma yow mun ngaa déglu wala mënoo dégg mun ngaa déglu wala mënoo dégg dama la benn gis nga bàyyi li ngay def boo jëlee ba Dakar da ngay fay yow bàyyi ko mu woote xanaa yow juboo yow weeru koor kii weeru koor magum jëmm mag la ngay wax. mën nga ma bàyyi ma woote wala ma ma woote. bàyyi ma woote. bàyyi bàyyi woote bàyyi yow yow yow jëndoo. dama xajeen xajeen. Euh, rafet. dukkure dukkure dukkure. bàyyi jàmm ah, ah man numéro maa ba léegi. jot nañ nouvelle bi danoo génnoon. gërëm gërëm birime. ah birime naa wax. birime naa la birime. Patas da nee na cinquante mille ma ko jox. ayca birime birime. billahi ma ko wax léegi léegi wàññeekul wàññeekul. soriwul soriwul boo wàññeekul. waa kay. ah waa kay xaaraan ku dégg séeréer. jërëjëf jërëjëf Fane jërëjëf Fane. ah bokkal ma toll yow nga ni tur yaa du ñu kalandoo ñu ngi kalandoo yow ah. ñu ngi kalandoo.

ah cër sax mi toog day leeral day dem si yoon la ne si yoon la ne. xam ni dafa jox cër. ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw bu am doole la. li muy seetla la rek. ah Matas. wuy ngi nii Matas nee na cinquante mille nga ko jox dama bëgg nag mbir leer. waaw. mbir yi nii nii point. ñaata milliards la yow kilifa gi mooy suñu menul sëy pour lu a gore man mi ma yónni ma man ndaw bu ma gën a gore ndax moo neexoon dog ko deux cent si si bu ko dégg da da ngeen jël xaalis bi nag ngeen séddale ko wax ko kilifa gi yow loo fi indi yow yow loo fi indi un million ah, indi fu un million ah yàlla kii lu joxuma woo sëñ Modou. déedéet jarul woo. jarul woo bu ko fi woo bu ko fi woo doo alaaji rafet bu ko fi woo yow mi da ngaa jaawale ñu fi alaaji ñaaw génn kër génn kër alaaji. génn kër alaaji waaye leer na. doo benn alaaji rafet leer na léegi sa jaar wàcc na. doo benn alaaji rafet laa génn kër sa jaar wàcc na léegi demal na nga yàqal. boo xam nga ko jot a nga ñëw fi di ma xam nga la laa bëgg xam nga la laa bëgg boo demee sa sëñ ba ah nga wax nga wax bii joxe na koy partage am na façon paa yu tax yoo xam yu tiyaan yi bu leen ko joxoon am loo wax. dégg nga li ma la wax. te day mujj sama tànn ma teg sa bu fi ñëwati wuu. dara nga korite gi. wuu tabaski waaw kër. dootul jot dara xam nga ne boo nekkoon xarit sëñ ba léegi nii nga def la tam moom wax la fi wóoroo wóoroo. ah yow kii amul lu wax. bàyyi bàyyi wóoroo bàyyi leen bàyyi leen 500000 yi 500000. Malaw ah affaire ah, jërëjëf yal na la yàlla fay liggéey nga lépp. ma yow man ma yow. waaw loolu la ngay liggéey. ah Pataas. kaay kaay ñëwal génnal génnal. génn génn ooyee. ana murin bi. bu mu waxante dëgg rek nag mu jeex. dëgg dafay amul ba nga tàmbalee ba ko ko fi dégg. coow li ñaan la wax ji fi ne rek. lu fi ne waaw xaalis bi. dem na bu yàgg jaay na ko bu yàgg ku la nuppul. day soo nekk na dem mu da nga jox suñu xaalis de. du ma la jox dërëm. Eh. baax na baax. mën ngaa eh. génne xaalis wala mënut a amu fi. désolé yaa ne ci dëgg. Ah, eh, ah. eh, dama ne mën ngeen tëj seen làmmiñ xaalis bi génn wala mënut a génn. xaalis eh, xaalis génn na. fa laa yem ak yéen Pape Malo xaalis baa ngi. voilà. bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi mën na la wóolu wóolu xaalis bi yow. demal ni. yow leen yéen yow leen ka purgi aw ah, purgi ka balo bala gari aw ite sen un cabinet médical traditionnel Serigne Medoune Sey borom de di fajkat cosaan booy jëfandikoo gàncax ngeen mën ko fekk Dakar Touba Kaolack Thiès wala saxi Ndar ko jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34. moo may kooru